match bi dañuy yéex def rythme si match bi moo tax euh, bi ñu jëlee but ci ci la xale yi xaw a yeewu yéex na trop ndax presque ci fin wu quatre-vingt-dix minutes la mais si prolongation yi tamit euh, bien que joué nañu à dix ndax dañu expulsé suñu benn défenseur centrale foofu lañu ñu teg rythme euh, dugal trois buts ci ci ci ci ci bi ñu joué à dix. championnat bi dafa xaw a dafa xaw a doy waar tamit ñun daal ñu ngi continuer di di joué match yi match par match. juger tay tay suñu suñu suñu suñu forme ci biir championnat bi sax da fay gaaw mais dañuy avancer ndànk-ndànk rek jéem set seet nu ñu progresser. ñun dañuy faral di tourner parce que tamit ñu jël à chaque fois ñen ñen xalé yi di leen dugal tout le temps kon ñeneen ñi duñu mën jouer donc même bu leen ay ay xalé ndaw yu tout tamit dafa laaj tamit ñu leen dugal ñu jouer ñu am temps de jouer comme ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jouer. jigen la lañu jugee voyage bo xamni sokoy def da ngay def presque 12 euh, heures de temps parce que bi 7 h du matin lañ fa joggé 5 19 h 17 h lañ fi lañ fi bon lundi la ñu teg ci mardi mercredi ñu bëgg football football 120 minutes c'est normal que mu demee nii ak le match la ko biñu def euh, Ziguinchor naaj wu tang nga football 16 h 30 bon day xawa metti trop trop bon xeyna nañu mën a euh, ci match bu football 90 minutes suñu malheur mooy ñu ngi mën 1-0 ba minute ben minute bon mu am erreur mu ñom ñu égaliser suñu demee prolongation il faut mu feñ ci xalé yi lolu lolu mom ku xamu sport xam football xam ni bon récupération bi du du mat limu mu mais luñ ci mëna wax moy euh, ñun amuñu tiitaange ci suñu équipe bi ndax euh, quand même équipe yi ñu fiy coow yëpp bu ñu tasee normal dañu football ñum ci jom ak ci fulla bon ak ci loi loi football lolu nak euh, tamit li ñu ci dal ci fu loi football la bokk. <laughs> ñom ñi door nañ leen fi kat en championnat te demuñu woon Ziguinchor. bon <laughs> donc ñun am nañu ben satisfaction bo xamni ça nous permettra ñu gëna défarat suñu équipe c'est vrai que amna lu ci manquer mais lolu tamit boy football nga koy xam parce que fi ñu nekk ni leneen mm. fi soga a ñi ñi tassel taseel fi ñëk fop xam li fi xew. te yalla xam na ni ci football bi nyu ñu bon yu xew yoy nak ñu ñuy won diñ ci gagner ñu ngi koy jang di ko rectifier oh yalla baxna